Allah'a emanet olun.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 wa suxri daa an naamiyan li manqali wa indaka ci an liya saa tafaduli yàlla yàlla nga ma def ci yow fa yow yàlla may borom ngëneel di lépp lu yàlla séddale ci wàllu ngëneel rek yàlla gënal ko ci. wa suux yàlla nga dolee màngari da an ngërëm naamiyan luy aji dolleeku li maxmari jëmee ko ci maxmar wa ko fa yàlla na nga fegal ani mu sëri ma booji moo ji baatil kadri lépp luy waral ak nëx-nëx. yàlla yàlla nga màng sa ngërëm luy dolleeku jëmee ko ci maxmar waaye lépp nox-nox boo xam ne dafay ñëw ci nit ki yàq ay jëfam yu baax yépp yàq pas-pasam yàq waxam yépp dafay am mu ne yàlla nga ma musal ci xeeti nox-nox yooyu yépp ak la koy waral. wasux yàlla na nga mànga di daa an ngërëm naa mel luy dooleeku li mosan bi jëmee ko ci musab wana na ji ne yàlla na nga ma musal min saqatin ci lépp luy sànji waqad bi ak mer yàlla na nga doolee màng sa ngërëm jëmee ko ci musab boo demee ñii ñëpp ca tur ca xasida gi de asmaa on li badrinil kiram kenn ku nekk indi na sa dàkkantal fii nag dañuy jàpp ne dafa tëggaat xasida gi ci géej gi moo tax mu ne yàlla nga doole màng sa ngërëm li ci jëmee ko ci ka nga xam ne moo di Musab yàlla na ma musal ci lépp loo xam ne xeeti sànji la ak sag mer lépp lu yàlla sànji wala mu wala mu mer ca jàmb ko jëfandikoo rek yàlla musal ma ci ba bu ma ko jublu wana ji ni yàlla nga musal min saxatin ci lépp luy sànji waxat bi ak mer wasux yàlla nga doole màng di daa ka sa ngërëm ilaa midd laaj jëmee ko ci midd laaj war fax nii yàlla na xendaka fa yaw yàlla bilaa xellaaji ci lurut ak faju bilaa xellaaji ci lurut ak saafru mooy koo xam ne dafay faju yàlla yàlla na nga doole màng sa ngërëm jëmee ko ci mid laaj yàlla nag ma def fa yow man borom Tuuba ma yëkkatiku te ak faju bu mu am mukk di max naa loolu waxi tasuuf la mooy nit koo xam ne lam soxla ci boromam moo di yàlla yëkkati ko faw nag buñ xoolee sart yi rek ci àdduna liggéey yu diis yi am na yooyu liggéey faaw mu jural la tawat ak faju rawatina nag ci tasuuf koo xam ne dafay jëm ci yàlla dootoo lekk ba suur dootoo naan ba màndi dootoo wax lu la neex dootoo toog fu la neex yooyu yëpp dootoo ko tal te yooyu yëpp xëyati tawat la mu ne yàlla gëral rek yëkkati ma te dootoo ma saafara ci mukk doo ma jox loo xam ne daf may daf may saafara wala dootuma tawat mukk nag ma yëkkatil sa bopp rek taawu ma war fax ne yàlla nag ma yëkkati ànd ak fajoo bilaa ilaaji lurut ak faju faju bu bu ma am feebar yoo xam ne da naan lii dama ko war a faj balaa yàlla di ma yëkkati na ma yàlla yëkkati benn yoon rek ndax am na koo xam ne balaa yàlla di ko yëkkati faaw mu faju ndax kenn ku nekk am na feebar yoo xam ne ci yow dafa dëkkaale ak yow yii mi ngi sa xol lii mi ngi sa yaram kooku nag fi dindeeku ci yow rek fi xeexoog sa bakkan ak sa bànneex adduna ak saytaane yàlla du la yëkkati loolu nag mooy xelaaj bi moo tax ma ne war foog na yàlla nag ma yëkkati xen rek fa yow bilaa ko mu yegg ci yàlla wasu yàlla nga doole naam yàllu di aji dooleeku li maxbat di jëmee ko ci maxbat wala di wax bin kay doom ci wax bi wax mi ni yàlla nag may aaral sa bopp wa ay dit yàlla nag may dëgëralal sa bopp yàlla yàlla nga doole màgg sa ngërëm luy dooleeku jëmee ko ci maxbat ibnu wax bi lu ñuy tuddee aar nag ma koy defalal sa bopp lu ñuy tuddee dëgëral muy kàttanal nit di ko dimbalal di feeñal ci moom ay xar baax yàlla nag ma koy defal wasu yàlla nga doole màgg di daa an ngërëm li na xaysin jëmee ci doomi xaysin ja maxbadin te mooy maxbat wan surne yàlla nag may taxu yàlla nag may dimbali alaama ci at mi waxal li te yàlla na nga saxal dàkk nasri dimbali gi may dimbali. yàlla na nga saxal dàkk nasri sama dimbal yow sun borom yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ci Mahbat ibnu Qaysi waaye at mii nga xam ne ci lañ ma génn muy ama jey sas 1895 di ma yóbbu ci tukki ba yàlla nag ma taxul sa bopp te taxawu googu nay sax rek. wasu yàlla na nga doole màng ri daa an sa ngërëm naam luy dooleeku. li di jëmee ko ci maxbat wala di abbaadin kay doom ci xabaat wa xayib yàlla nga sooyal xusadi yaakaar ak ñi ma kañaanee yàlla nga màng sa ngërëm luy dolee ko jëmee ko ci maxbat ibnu xabaat waaye ñi ma kañaanee yaakaar yi am yépp mooy na tas bum na sooy liñ bëgg ci man yépp mooy na nga sooyal seen yaakaar buñ ko am wasu yàlla na nga màng di daaka sa ngërëm ila muatibi jëmee ci muatib ibnu ubaydin kay doom ci ubaydin wa tey bi yàlla na nga teeyal xayaati sama dund yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ko ci Muattib bay Ubaydi sama dund gépp na tey bu am benn nox-nox wasoo yàlla na nga màng di daaka sa ngërëm ilaa Muattibi jëmee ko ci Muattib wala di Awfin kay doom ci aw Awfi wa tey bi yàlla na nga teeyal ba tey ma maati sama faatu yàlla yàlla nga doolee màng sa ngërëm jëmee ko ci ki nga xam ne mooy Muattib ibnu Awfi na nga màng sa ngërëm mu jëm ci moom waaye bu may faatu na faatu ki sedd mooy faatu woo xam ne du métti sukuraat sukuraat goo xam ne du métti wasox yàlla nga doole mangari daa ak sa ngërëm ilaa mexdaat jëmee ci mexdaat wala di aswat kay doom ci aswat wakun yàlla nga doole nekkal ma di doon sama keno ki may dëgëral yàlla yàlla nga doole màng sa ngërëm jëmee ko ci mexdaat ibnul aswat waaye yàlla nga doole nekk sama keno boo xam ne danga may dëgëral di maanaa waxtu ne danga may dëgëral wasox yàlla nga doole mangari daa ak sa ngërëm ilaa muawis jëmee ko ci muawis wala di afraa kay doom ci afraa wa wasax yàlla nga doole yaatal man fa si sama jàllukaay muy sama woyuwaay rek muy sama yoon. yow sunu borom yàlla nga doole màngas ni ngërëm jëmee ko ci Mahawis ibnu Hafraa ah. waa yoon wi may jaar waxtu ne na nga koy gën di yaatal muy gën leer di gën di yaatu. moo tax mu ne yàlla na nga doole yaatal sama romb waay sama jaar waay kooku mooy Manfis. wasaw yàlla na nga doole màngar yi daaka sa ngërëm ilaa Muawis lii yëpp digganteem ak noon yi rek lay ñaan yàlla musal ko. yàlla nga doole màngar sa ngërëm ilaa Muawis jëmee ko ci Muawis wala di amrin kay doom ci amru. wa ahis yàlla na nga doole musal janaabi sama wàll. yàlla yàlla nga dolee maa nga sa ngërëm ko ci Muawis ibnu Amrin waaye lépp lu tukkee ci sama wàll rek musal ko moo xam ci xayu noonu la wala saytaane wala ci pexe mu mën a doon wasux yàlla nga dolee maa nga di daaka sa di jëmee ko ci maçon wala di awsin kay doom ci awsi wala tasit yàlla na ngay dolli tawxiid yi sama tawxiid wéetal gi ma lay wéetal yàlla yàlla nga màng sa ngërëm jëmee ko ci Mas'ud ibnu Awsu waaye tawxiid gi nekk ci man te la koy weetal yàlla na nga koy dolli waxtu ne ma gën di la wéetal di la kennal waaye wasux yàlla na nga dollee màng di daaka sa ngërëm ilaa maçon di jëmee ko ci maçon wala di xal data wala di xalwata kay doom ci xalwata waaye wasit yàlla ngay dolli tas yi di dëdd gi ma dëdd adduna ci ñàkk koo xemem yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ko ci maçon mi nga xam ne maçon ibnu xalwata la waaye dëdd gi nga xam ne moo nekk ci man mooy ñàkk xemem adduna buñ ne at tasyid fi mabahijil xayaati mooy tarkuha wa admu raqabati fiha mooy koo xam ne amul lenn lu muy xemem ci mooy koo xam ne saxaduhu fi malasaatil xayaati ja'alu yarqabu anha wa yatrukuha yasaaduha mboolem yi neex ci àddina yëpp doo ko wan gannaaw dëdd ko jublu boromam kooku mooy ki nga xam ne dafa dëdd àddina moo tax ne waxtu yàlla na nga doole mangari daaka sa ngaram ilaa maçon jëmee ko ci maçon wala di xalwata kay doom ci xalwata wasita yàlla na ngay dolli tas yi di dëdd gi ci ñàkkoo xemam wasux yàlla na nga dolli ridaa sa ngërëm ilaa maçon di jëmee ko ci maçon ibnu rabian te kay doom ci rabian wasit waaye yàlla na ngay dolli wii di sama yóbbal yaw sun borom yàlla na nga dollee màng sa ngërëm jëmee ko ci maçon ibnu rabian ta waaye yóbbal bi nekk ci man nay dollee ko ba gën a bëri xëy na loolu moom lam ci nam rek mooy ragal yàlla ndax wa tasawodoo fa inna xayra saadi taxawaa sëriñ bi moom yóbbalam nekkul loo xam nit koo xam ne dafay tukki ngir di indaale sëric bi nit ñi da lekk waaye sëric bi mu indaale mooy texe mooy ijal rujoon ila qawmi saadatana wal takfinal yawma jami'a xalqi niiraana bu dee ci xeetu yonent bi yëpp mooy seen texe waaye yóbbalam ca dëgg-dëgg ci digganteem ak borom kooku fu mu nekk rek mooy ragal yàlla wasu yàlla na nga dollee màngar yi daa sa ngërëm lim ne abdi sens yi ko ci ka nga xamee ne mooy masont ibnu abdu sahdi moo tax mu ne masont it laa wax wasu yàlla na nga dollee màngar yi daa sa ngërëm libni abdi sandi jëmee ko ci doomi abdi sandi ga maçon tamee maçon aridaaka di kuñ gërëm waxalit te yàlla na nga saxal majdi sama tedd nga yàlla yàlla nga doole màng sa ngërëm jëmee ko ci maçon ibnu abdi sandi mooy ka nga xamee ne gërëm nga ko ci biir ak ci biti waaye yàlla nga doole saxal man borom Tuubaa tedd nga gi ma tedd tedd nga gi ma am nay gën di sax wasux yàlla na nga doole màng di daa ak sa ngërëm ila maçon jëmee ko ci masont wala di sandin kay doom ci sandi wala tuddum yàlla na nga saxal dàkk tax mi di sama sant yàlla yàlla bul dañ mukk di sotti waamee ngërëm jëmee ci maçon ibnu saxdi waxtu ne na nga koy màng rek jëmee ci moom waaye sant yi ma lay sant naan yaa ma defal nangam yëpp ma di ko cant sama roo sama xol sama jëmm yépp sama làmmiñ loolu na sax de na ma ko defal ma sax dàkk di la sant ci waxtu ne wasux yàlla na nga dollee màngari daa ak sa ngërëm ila mohaas yi jëmee ci mohaas wala di afra kay ay doom ci afra wakun yàlla na nga dellee nekkal mohaas yi ku may musal mooy ko ne daal sama wéet la ci lépp lu may muslu rek mu musal ma ca yàlla yàlla nga doole màng sa ngërëm jëmee ci Muaz ibnu Afraa waaye yàlla na nga doole nekk sama wéet waaye ci lépp lu may ragal rek nga musal ma ci moo xam saytaane la wala njabootam nga. wasoo yàlla nga doole màng ri daa an ngërëm li Muaz ibnu Jabal jëmee ko ci Muaz ibnu Jabal. warum ma yàlla na nga yéwénal xaqadiya sama pas-pas wa xawli ak samay wax yëpp wala amal ak jëf yëpp. yàlla maa ngi lay ñaan Muaz ibnu Jabal na nga màng sa ngërëm jëmee ci moom waaye sama pas-pas na nga ko defar ba mu jag samay wax na ko defar ba mu jag samay jëf na jag lépp na jag na yéwén wasux yàlla na nga dolle màng rida an gërëm lib ni maaxisin jëmee ci doomi maaxisan ja moas te mooy moas wal tax fi ni yàlla na ma fegal àlla ay na ñu rëbb ko yaa xayra malas yow ngën ci ku ñuy wéedu yàlla yàlla na nga dolle màng si ngërëm jëmee ci moas ibni ma ibni maaxis moas mi nga xam ne doom la ci maaxis yàlla na nga dolle ngërëm ca moom moas ibnu maaxis waaye yàlla nag ma musal ci iblis ba ma mucc ci moom yow mi nga xam ne képp ku ñuy wéedu yaa ci gën wala tarda yàlla na nga doolee gërëm an muhaas ibnu amri wëlis ka nga xam ne mooy muhaas ibnu amri waqaar yàlla na nga notal lii ñal ma xeddaay samay noon yaasal xaxar yow mi boroma notel ga yow mi not lépp daal yàlla na nga ma notal samay noon waaye yàlla na nga doolee gërëm muhaas ibnu amri ndax yow yaay not lépp wa huwal qaahiru fawqa ibaadihi la yàlla wax kon nag yàlla notal ma samay noon yalla rek mo mën moo mën a not ay noon wasu yàlla na nga doolee màngari daa an ngërëm naam li miix jaxe jëmee ko ci miix jaxe wa ku fa yàlla na nga fekk may duru ni lépp loo xam ne daf may lor at madd jexe mu wëli sama tëdduwaay yow sunu borom yàlla na nga doole màng sa ngërëm luy doole ko jëmee ko ci ku ñuy wax miix jaxe na nga koy sotti ci moom lépp loo xam ne sama tëdduwaay bii ma nekk rek lu ma fii lor rek bala muy ñëw di ma lor rek yàlla musal ma ci wasux yàlla na nga doole màng ri daa an sa ngërëm naam yoon li doole ko li mistahi jëmee ko ci mistahi waxtu yi yàlla na nga ko billee ñal ma abwaaba xuyóorika say bunt yi yëpp yàlla yàlla na nga ko doolee màng ngërëm luy doolee ko jëmee ko ci mista mista yi na nga doolee màng sa ngërëm jëmee ci moom waaye nag nag ma hubbil sa bunt yiw yëpp yëpp foo xam ne la rek te bunt rek yàlla hubbil ma ko wasux yàlla na nga doolee màng ri daa an ngërëm naameen luy doolee ko li maax ko ci maax ni wasrif yàlla na nga wëlbati an yemu sërima ku la maa la yax ni lépp loo xam ne nekk loo xam ne day jëriñe yàlla yàlla na nga màng sa ngërëm luy doolee ko ci wax ne jëmee ko ci max ni waaye lépp loo xam ne ku ca nekk du la jëriñ dara yàlla musal ma ca wëlis ma fay dem bu ma bu dem ci lu dul jëriñe mukk naa sax rek ci luy jëriñe wasux yàlla na nga màng di daa an ngërëm naam ya luy dooleeku lil munsir jëmee ko ci munsir ibnu muhammad kay doom ci muhammad wa kasri yàlla nga dollee baril xayri sama yiw yàlla yàlla nga dollee màng sa ngërëm luy dooleeku jëmee ko ci munsir ibnu muhammad waaye sama yiw waxtu ne yàlla nga koy dolli muy gën di dooleeku wasux yàlla nga dollee màng di daa an ngërëm naam ya lu di aji dooleeku li munsir jëmee ko ci munsir ibnu xudaama te kay doom ci xudaama wa nawir yàlla na nga doole leeral xal bi sama xol yàlla yàlla nga doole maa sa ngërëm li doole ko jëm ci jëmee ko ci Munsir ibnu Xudaamata waaye sama xol lépp luy lëndëm rek gannaaw ba ko dàqee yàlla na ci doole dugal sag leer wasux yàlla nga doole maa nga daa an sa ngërëm naameen luy doole ko ba tey li Munsir yi jëmee ko ci Munsir wala di amrin kay doom ci amrin wa basri yàlla na nga bégal ayaali sama njaboot yàlla na nga doole maa sa ngërëm li doole ko jëmee ko ci Munsir ibnu Amri sama njaboot bu ci kenn jàq ñëpp nañ bégee ci man ñëpp rek na nga leen bégal ngir sama jëmm ji wasux yàlla na nga doole mangri da ak sa ngërëm ilaa muleeli ci muleeli wajaal yàlla na nga def nahaari sama bëccëg yëpp taatan muy topp la waleeli ak muy topp la tanaasun la yàlla na nga doole mang sa ngërëm ci muleeli waaye sama bëccëg yëpp ak guddi yëpp nañ doon jaamu la rek ci saahir ak baatin yaa rabana borom noo ngi sali yàlla na nga julli salaatan julli goo xam ne tasuux ci man biyaa ci dawaa man faw mat matlubin gën ci la ñuy sàkku waaye yëfoox loo xam ne sax dana féete kaw càkkutif la yow suñu borom yàlla na nga julli julli koo xam ne danga ma màngale ci saw bug julli googu faw ngën ci lépp lu ab jaam di sàkku ci yow rek waaye ba màngalaale ma loo xam ne sax dana faw ko càkkutif la ma salaamin ànd ak sëlmal goo xam ne taksifu danga mu muril al asrara secret ya lii ñeel ma ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam julli googu ak sëlmal googu na nga ko julli ala la ci yonente bi nga xamee ne anaara mooy ki nga xamee ne leeral na lépp loo xam ne dafa lëndëmoon Seydina kooku mooy sunu sangi Muhammadin turam mooy Muhammad xasril olam mooy njëndi xam-xam ya mooy dëkki xam-xam yëpp wal ali yàlla na nga julli ci waa këram wa sama bi ak saabaam yëpp wasux yàlla na nga li lii jëmee ci man borom tuwa maa orom lépp lu may sàkku yàlla salmal googu nag ci nga may murulee mboolem secret yu nëbb yëpp ma xam ko ma di leen gis waaye na nga salmal ci yonent bi nga xam ne li fi lëndëmoon yëpp moo ko leeral kooku nag mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad xam-xam yëpp ba mu ne yàlla na ci waa këram ak saabaam yëpp waaye lépp loo xam ne maa ngi koy wut na nga ko màng indil ma ko yow yàlla waab yàlla may lee ñenn bi en li xarfi nuuni ci barkeem ñooñ xarfu nuun gi fawziya samak texe fii sal ami ci mii at bil mak noonu ci li nga xam ne dafa nëbbutu ba kenn xamut ko ba kenn gisut ko yàlla maa ngi lay ñaan nag di dugg ci beneen buntu mooy ñi nga xam ne dañoo ba badar ta seen xaraf yu njëkk ci seen tur yi nuun lañ koy wax yàlla may ma ci barke barkeeb xarfu ñuñ nuun ma réussir ci at mi ci lépp loo xam ne dafa nëbb rek ma am ci akuk texe am ci akuk réussir di max naa lépp loo xam ne dafa nëbbu te nekk sama kanam rek yàlla di ma ko xamal ci at mi moo tax ne na nga may ci barkeb xarfu ñuñ nuun faw see sama texe fii sal ami ci mii at bil mak ca la nga xam ne mooy lu nëbbu la nga xam ne dafa nëbbu dal maa ngi ñaan yàlla moom may ma ko ci at mi ma réussir ko mooy ma xam ko ma texe ci wasax yàlla na nga doolee maa nga di daa an sa ngërëm naam yéen luy dooleeku li nawfal jëmee ci nawfal wa basri yàlla na nga doolee bégalee bii ci sama jëmm ji ma di yow mi yaay ki may delloo max fali samay ëtt yàlla yàlla nga doolee maa sa ngërëm li doolee ko jëmee ko ci nawfal waaye ëtt yi nga xam ne moom lañ ma jëlee muy samay keppaar ca Touba al Mahro sax ca Mbàkke Baari jëlee ma samay ëtt yi yàlla yàlla nga may doolee bégale ci sama jëmu ji dégg nga waaye nag yàlla nag ma delloo ci samay ëtt ndax kat dañ ma fa génnee tooñ ma fa kon nag boo basir yàlla na nga bégalee bii ci sama jëmu ji mboolem koo xam ne bëgg na ma rek wala mu yaakaar ma yaa ma adi yow mi nga xam ne yaay ki may delloo ma fali samay ëtt bu waxee ma xam nga ne ëtt sëriñ bi fu mu mosaano toog rek ñaareel ma nga ci jàng alquran wala jàngale dong yi wër ko loolu nag mooy maxfal te foofu lañ ko jëlee ci diggi dong ya gis nga ne kon kooku mooy buñ la maxfal mahafilu rasmiyatu al majalisu al mahafilu siyasatu al mahafilu dawliyatu yooyu yëpp danañ ko wax waaye buñ la rek mooy mahibin makaanu ijtimaain li mawdoin ma mawdo bu mën a doon rek moo xam dañ fay jàngale wala ñu fay jàngal alquran kooku mooy ëttam yi bu namut ci biir juma ya wala jàkk ya waaye barab yu muy jàngale rek kooku mooy maxfal da nga jàng ci barab yu bëri lu mel ni ca mawaahibu mu ne nawir fi naay na nga leeral samay ëtt muy ëtt yi nga xam ne ci la ay dongam di jàngee rek la ci namu de ba tey wasux yàlla na nga màngari daa sa ngërëm li noxmaan jëmee ko ci noxmaan aqi sarafa kay borom ñaw waab yàlla na nga may lee ñeel ma nasaafata ak set yàlla yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ko ci noxmaan mi nga xamee ne ku ñawoon la ko amoon ak ñaw ko amoon ak dégg ak ñaw la waaye yàlla nag ma may li ñuy tuddee ak set ma set wécc ci saahir ak ci baatin wasux yàlla nga doole maa ngari daa ak sa ngërëm li nasrin jëmee ko ci nasru wansur yàlla nga doole wan wansur yàlla nga doole dimbale al'aama ci at mi kulli sama lépp wala tuddum yàlla nga saxal ta tabu suri sama mbégte. yow sunu borom yàlla nga doole maa nga sa ngërëm jëmee ko ci ko ñuy wax nasru waaye at mi na nga sama lépp ba sama dara bum loru ci saahir bum loru ci baatin sama lépp daal na ko taxawu ci at mi waaye samay mbégte nay dolli na nga koy dolli di saxal ci waxtu ne donte waxtu ne maa ngi bég waaye na nga koy dolli. wal da yàlla na nga dollee gërëm dégg nga xan nuxmaan walis nuxmaan man mooy ki nga xam ne yun maa ñi ngi koy askanale ilaa insri jëmee ko ci insri waru dani yàlla nag ma delloo saa yi daan may aji texe sa ilaa di borom xéwal yàlla yàlla nga dollee gërëm Noxmaan ibnu Asrin waaye nag ma delloo ma ñibbi senegal doon ku texe doon boromi xéwal li ma tax a jóg daal may dem ci géej ga loolu na sotti ndax ñëw ba ci géej gi te amoo loo doon wut lool sooy la sëñ bi moo tax bi mu demee ci géej la mu bëggoon yëpp ci diggante borom am na ko. wasux yàlla nga doolee màng ridaaka li nga xam ne moo di sa ngërëm ilaa noxmaana jëmee ci noxmaan wala di malik kay doom ci malik waxab te yàlla na nga may lii ñeel ma al ana léegi léegi joni joni firaaxa ma taqalikoog jumlati on yóbbi mbooleen sama ayib su ko defee maadiya may aji wéy nag bi maa ca la nga xamee ni ixtata tànnal nga ko lii ñeel ma dawaa man faw naajiya tey aji mucc nag mun ne yow sunu borom yàlla na nga doolee màng si ngërëm jëmee ko ci Nuxmaan ibnu Malik waaye léegi léegi jooni jooni laa bëgg nga may ma lépp luy ayib ma tàggoog man su ko defee nag mën a sax ci li ma tànnal di la jaamu faw waaye mën a mucc wala tax yàlla nga doolee gërëm an Nuxmaan walis Nuxmaan man mooy ki nga xamee ne yun maa ñi ngi koy askanalee ila abi xusaymatin jëmee ko ci abi xusayma wa asib te yàlla na nga dàq maa ubbi lépp loo xamee ne da koo bañ yow sunu borom yàlla na nga doolee gërëm Nuxmaan ibnu Abi Xusayma waaye lépp loo xam ne da koo bañ rek yàlla na ma ko dàqal bu mu ko jublu wasux yàlla na nga doolee màng ilaa Nuxmaan jëmee ci Nuxmaan man mooy ki nga xamee ne yun sabu ñu ngi koy askanale ilaa Sinaan jëmee ci Sinaan wajaal ni yàlla ma def dawaa man faw saa amaan may borom assurance di borom sécurité yow borom yàlla nga doolee màng jëmee ci Nuxmaan ibnu Sinaan sa ngërëm ci waxtu wu ne waaye nag ma def faw may borom sécurité am assurance. wasuqu yàlla na nga doole maa ngi dan ngërëm lim ne lim ne abdi amrin jëmee ci doomi abdi amrin ji an noxmaan te mooy noxmaan warul yàlla na nga tàggatalee ñel ma samaani mboolem ñi ma jamono wanteeg ñëpp. yàlla yàlla nga doole màng sa ngërëm jëmee ko ci Noxmaan ibnu Abdi Amri waaye yàlla nga ma doole tàggatal mbooloo ñi ma jamono wantik ba kenn du ma mën a lor waaye gannaaw loolu na nga màng sa ngërëm jëmee ci Noxmaan ibnu Abdi Amrin wasoo yàlla na nga doole màng ba tey wala boog yaa rabbana yow sunu borom sali yàlla na julli salaatan julli daa iman guddi aji continué di sax rek ala la si ci yonent bi nga xam ne xaadawtu mujj naa alxama ci at mi doon ab liggéeykatam yow sunu borom yàlla na nga julli julli goo xam ne dafay continué di sax rek ci yonent bi nga xam naa ci at mi doon sayidina kooku nag mooy sunu sang muhammadin turam di muhammad wasalimi salmalal ci moom wal ali jullil ci waa këram sama bi ak li muslimi ànd julli ci moom nag julli moom mi nga xam ne ci at mi laa mujj nag doon xaadimam ji koy liggéeyal kooku nag mooy sunu sang turam di Muhammad yàlla na sëlmal ci moom yàlla na julli ci waa këram ak saabaam bi sëlmal ci ñoom yàlla na julli ci bépp julli sëlmal ci ñoom waab yàlla na may lii ñeel ma bi an li xarfi saari ci barkeb ñooñ xarfu saat sa waxoo ko sang màngal lii jëmee ci man mu naay sama mbébét fii tamaadi ci luy sax faw yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb ñi nga xam ne dañoo teewoon Badar ma màngal lépp lu may mbébét rek te itam nanga koy màng wasux yàlla na nga doolee mangari daa ak sa ngërëm ilaa safwaana jëmee ko ci safwaan wasox si yàlla na nga dàq ani musarima alxaama ci at mi al adrana tër tër yi muy tilim tilim yi yow suñu borom yàlla na nga doolee mangi sa ngërëm jëmee ci safwaan waaye at mi lépp luñ may tuumaal di ma ko tëqal di ma ko tilimal yàlla na nga ko dàq yëpp mu set ci man wasux yàlla na nga doolee mangari daa ak sa ngërëm ilaa soxay bi jëmee ko ci soxay bu wax fi yàlla na nga jégal sunu bi sama bàkkaar wam hu yàlla na nga faraay bi sama ayib ani musarima yàlla yàlla nga màng sa ngërëm jëmee ko ci soxay waaye lépp luy bàkkaar ci man nang ma ko jéggal faral ma sama ayib yëpp ba mu set wicc ba dara du ci des yaa rabana yow sunu borom noo ngi la ñaan sal yàlla nga julli salaatan julli goo xam ne lantiha déet yemukaay laxaa di ko ñeel moom julli ga ala julli ci bi nga xam ne mooy jëmmi leer al munir mooy aji leeral ji silbaha mooy borom taar bi yow sunu borom na nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli xam ne du am mukk fu muy yem na julli ci yonent xam ne mooy leer waaye mooy leer gi leeral mooy borom taar bi léppom taar la Seydina kooku mooy sunu sang bi Muhammadin turam mooy Muhammad wa sallim salmal salmalal ci moom wala ali julil ci waa këramu soobi ak saabaam yëpp wa tamimit yàlla na matal xasdi li ma yéene yëpp ma jublu yëpp yàlla na nga ko matal ba mat sëkk kooku may wax nee na mooy sunu sang turam di Muhammad yàlla na nga salmal ci moom julli ci waa këram ak saabaam salmal ci ñoom waaye yàlla lépp loo xam ne sumb naa ko te yéene ko rek te jublu ca yàlla na ko matal waab yàlla na nga may lee ñal bi en leer fi daal di ci barkeb ñooñu xarfu daal kaw ne sama bisra doon mbégte ku la si rasaat képp kuy borom njub ku li si rasaat képp kuy borom njub maa ngi lay ñaan nag ci barke ñi nga xam ne dañoo teewoon badar te seen xuruf wu njëkk wi tàmbalee xarfu daat maa ngi ñaan ci barke ñoo ñëpp ma doon man borom Tuubaa képp ku naan ku jub rek daf may bégee maanaam mbégte lay doon ceew wasux yàlla na nga dolle màngari daa an ngërëm naameen lu di aji dolleeku li damra jëmee ko ci damra wakun yàlla nga dolle nekk mu xiisa ni doon ku may xettali bi xëyri nusra ànd koog defal ma ngën ci ak yàlla yàlla nga doole màng sa ngërëm luy doole ko jëmee ko ci damra waaye yàlla nag may doole xettalil sa bopp di ma taxu defal ma ngën ci ak ndimbal rek defal ma ngën ci ak xettal ak ngën ci ak ndimbal fu ma jaaxlee daal dee ma xettali fu ma soxlaan ndimbal wàllu ma wasax yàlla nga doole màng di daak sa ngërëm ilaa daxaaki jëmee ci daak wala di xaarisata kay doom ci xaarisata sil idraaki kay borom dabu sil idraaki kay borom dabu lépp loo xam ne da koo rawoon sun borom yàlla na nga màgg sa ngërëm jëmee ko ci daxaak mi nga xam ne doom la ci xaarisata ñi koy wax daxaak ibnu xaarisata moom mi nga xamee ne la ko rawan yëpp ci njëlbéenu lislaam bi mu tàbbagut ci lislaam bi mu duggee ci lislaam mel na ni jihaat na ko ànd ko yonent bi ba dabaatal lépp. waab yàlla na nga may lii ñaan ba tey talaasuma suruur yi may saxo may taxu mbégte yi bi ka ci sax kàttan bi laa makrin ci lu benn pexe wala xuruuri wala ak waru. yàlla yàlla nag ma may fu ma toll di taqoog mbégte rek du ma gis naqar du ma taqoog mbég du ma taqoog naqar di max naa mbégte rek lay ànd ak waxtu ne may belli te nag may gi ma koy may bu ma ko defal mukk ngir pexel ma wala ak waru di ma ci fekk ndax lépp lu tukkee ci yàlla ñëw ci jàmm bi rek pexe lay tudd wala istitraaj moo xam mbégte la moo xam xéewal la moo xam xam la lu mën a doon rek yàlla mën na koo defal jàmm bi fekk da koy pexel rek te ak waru mën na ko caa dab kon jàmm lépp lu mu nekk rek woru weesoo gut ca pexem yàlla weesoo gut ca yàqule yàqule ci boppam weesoo gut ca moo ta nag may nag may saxoo mbégte ci sa kàttan bi laa makrin te pexe bu ci ànd wala xuruuri wala ak waru koo xam ne daal dafay tuxu mbégte te du waru te itam ki ko defal mbégte pexelul ko te muy yàlla war da yàlla nga doolee gërëm xanit daxaa ki walis daxaa man mooy ki nga xam ne xadin tasama ñi ngi koy askanale li abdi amrin jëmee ko ci abdi amrin wan fi yàlla na nga dàq kat yi sama coono yow sunu borom yàlla na nga doolee gërëm daxaak daxaak mi nga xam ne moom la ñu wax ibnu abdi amrin waaye lépp luy coono bu nekk ci man nang ko nang ma teggil ba dootuma yëkkati coono yaa rabana yow sunu borom sali yàlla na nga julli salaatan julli goo xam ne tarfoo da nga yëkkatee biyaa ci saw bu julli googu ilayka jëmee ci amali sama jëf is yaqon ci waxtu woo xam ne da nga ko yëkkati mu yëg ci yow maa taqabuli ànd koog na nga ko nangu nag ala Muhammadu julli gi na nga ko julli ci kaw Muhammad nag moom wa alihi moom ñooñam ña wa sama bi ak saabaam yi ak wal muxtadi ak way roy ña yonent bi sallallahu alayhi wasallam wal muxtadi ak ña koy roy yàlla yàlla nga julli julli goo xam ne ci sababu julli googu ci nga yëkkatee sama jëf yëpp te saa boo ko yëkkati nag na ko nangu waaye julli gi ci boppam boo ko yëkkati na nga ma nangu laale jëf ba tey yëkkati ko na ko julli ci yonent bi di Muhammad julli ci waa këram ak saabaam yëpp ak ñiy roy yonent bi yëpp te ñëw ci gannaawam na leen julli wàll ci ci ñoom waab yàlla na nga may dee ñala bi en harful ayni ci barkeb ñooñ harful ayni gi salaamatan ak mucc min duri ay ayni ci lori bépp bët yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma ci barkeb ñooñ harful ayni gi mooy ñi nga xam ne seeni tur dafa tàmbalee ci al ayni ñi nga xam ne seen tur dafa tàmbalee ci ayin te mooy ay ndigal li ma la ci ñaan mooy mucc ci lori bépp bët ndax ayin la lami isaar rek mooy al aynu moo tax nag bi mu yegsee rek ba dal bunt bi mu ne li may ñaan ci seen daraja mooy mucc ci ayu bépp bët bunt bi rek boo ko boo ko boo ko bindoon takk ko kooku mucc nga ci xayu bët buntu bu ci nekk tur ya ca daje am na lu muy saafara moo xam lu jëm ci wàllu cat la wala wàllu bët benn bu ci nekk bunt bi rek am na lu muy junj waaye buntu bu ayin moom li muy junj ci koo xamee ne dafay ragal bët bu ay pour mu topp ko wala mu dal ko wala mu dal njabootam day fexe kenn ku nekk mu bindal ko bunt bi takkal ko ko. sunu borom dana ko ci musal de waltar la yàlla nga doolee gërëm an xaamirin walis amir al mansubi kada ku ñuy askanale ila umayata jëmee ci umaya wa kafir yàlla nga farxu bi samay bakkaar yàlla nga doolee gërëm amir bi nga xamee ne mooy ibnu umayata moom lañ koy askanale waaye bépp bakkaar bu nekk ci man nag ma ko jéggal faral ma ko ba du am benn jeexit waltar la yàlla nga doolee gërëm xana xaamir walis amir al muntasibi kada ku ñuy askanale ilal bukayri jëmee ci bukayri wastajibi yàlla nga accordel ma wastajibi yàlla nga nangul du'a ñaan yàlla na ko doolee gërëm amir ibnul bukayri waaye lépp lu ma la ñaan na ma ko nangul wala tax yàlla na ko doolee gërëm an amir walis amir al muntasibi kada ku ñuy askanale ila rabia te jëmee ci rabia wa asibi te yàlla na nga dàq ay bi sama ayib yàlla yàlla nga doolee gërëm amir mi nga xam ne mooy amir ibnu rabiata waaye lépp luy ayib ci man ak sik rek yàlla dindi ko ci man bam mu ci ma tàggoog moom wala tax yàlla nga doolee gërëm an amirin walis amir ibnu salama kay doom salama wasaqri yàlla na nga tàggatalee ñeel ma yaa yow mi am kattan ji salama ñi nga xam ne ay tooñkat lañ yàlla yàlla nga doolee gërëm ami ibnu salama waaye nag képp koo xam ne ab tooñkat la yow mi nga xam ne tëlew dara dara dara dara dara amul loo xam ne da nga koo tëlee lépp mën nga ko ci sa kattan ci sa coobare kon nag tàggatal ma ñi xam ne dañoo jóg ngir tooñ rek leen tax a jóg nag ma leen nooy lan ñoom ñëpp ñu mokkurub nooy de wala tax yàlla nga doolee gërëm an xaamir wali saamir alisi mooy ki nga xam ne intasab ñu ngi koy ilaa fuhayratin jëmee ci fuhayra wa sox yàlla nga màngal li jëmee ci al arab li nga mooy samay ajo yàlla yàlla na nga doole màng sa ngërëm jëmee ko ci amir ibnu fuhayrata yàlla nag ma màngal lépp loo xam ne maa koy aajo di ko bëgg rek jëmee ko ci woon borom Tuubaa sox yàlla na nga doole màngal yi daaka sa ngërëm ilaa xomaara jëmee ko ci xomaara wasaqir yàlla na nga tàggatal li ñeel ma kulla si imaara képp borom fal yow sun borom yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ko ci ki nga xam ne moo di xomaara waaye képp koo xam ne dafa yor wàllu adduna muy wàllu pal yàlla tàggatal ma ko moo tax man wa saxir yàlla nga tàggatal yee ñal ma kulla si imaara képp kuy borom pal mooy koo xam ne dafa yor paluk adduna muy buur yeeg premier ministre yeeg ña caaju ñëpp nga xam ne wàllu adduna rek moo leen ñor te moom lañ yore post yooyu mu ne ñoom ñëpp nag ma leen tàggatal ndax fitna yu ëpp ci ñoom lay bay ko ci jamono yooyu waltar da yàlla nga dollee garam xan xaqil wali xaqil asahidi kada aji sayid ca xare ba te mooy badar woo dani yàlla nag ma min afdalil abidi ma bokk ci gën ci jaam jaam ñi nga xam ne ñoo lay jaamu yàlla nga doolee gërëm xaqil mi nga xam ne dafa deewoon ca xare ba dar bokk na ci ñi nga xam ne dañoo faatu ca xare ba moo tax mu ne ko asayid waaye nag yàlla nag ma lim ma bokk ci ñi nga xam ne ñooy gën ci jaam yi ndax fukk lañ ak ñeent defe naa ni ñoo xam ne ñëpp ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ bokkoon te dee nañ ca xare ba dar waaye nag yéefir ñi moom lañ rey ci ñoom juróom-ñaar fukk lañ kon bokkul fukk ak ñeent ak juróom-ñaar fukk bokkuñu kon ñooñu kerek julli ñu ñoo man yéefir ña mu ne yàlla nag ma lim bokk ci ngën ci jaam ñi de wala suux yàlla na nga màngadi daa an ngërëm naam yan lu di aji dooleeku li ansimi jëmee ko ci ansim ibni adin kay doom ci adi wala tuddum yàlla na nga saxal makaarimi sama tedd nga yàlla yàlla na ko doolee màng sa ngërëm luy ko jëmee ko ci ansim ibnu adi waaye makaarimil axlaaq gi nekk ci man tedd nga gi nekk ci man nay sax faw wala tada yàlla na nga doolee gërëm an ansim walis ansim ibnu xaysin kay doom ci xaysu wasarax yàlla na nga xubbi sadri sama dënn wal tu asim yàlla nga doole màggal kay si sama ñaw yàlla yàlla nga doole gërëm asim ibnu qaysi sama dënn bi na nga ko xubbi mu yaatu ba mën a dékku lool te mën a muñ waaye itam ñaw gi nga xam ne moo nekk ci man te muy nekk sama xel nay gën di yaatu di gën di yéeme ci waxtu ne may gën di ñaw di gën di muus di gën di yeewu kon wasarax yàlla na nga doole xubbi sadri sama dënn wal tu asim te yàlla nga doole màggal kay si sama ñaw maanaam daal heure bu ne daal nay gën di yeewu rek la ci namm